ñi fi teew ndax man ñi ma yëg ak ñëpp daal gërëm nañ gërëm bu amul àpp waaw di nuyu Sénégal di nuyu nuyu monde di nuyu ahlu làmb bu baax di ñaan yàlla senegal jàmm sax fi jàmm am fii di ñaanal ñi dee si accident yeeg yooyu yàlla leen suñu borom yàlla yërëm xam nga mu doon loo xam ne lu fi lu fi deñ lay doon suñu borom am na ko mën na te yàlla ñu ko defal barki mag ñu baax ñu fi tëdd ñëpp waaw ba nga laaj ma leneen ñu gis jag si mu def journée des espoirs boole sa diggante ak yaa Liss Ndiago koo xam Liss xam ko ci mën a mobiliser xam liis xam ko ci mën a bëre koo xam Liss xam ko ci waane yow tamit euh, même chose la moo dugal ci Liss Ndiago waaw mbëra rek comme mbër yëpp yaa làmb moo ñu boole ñu war a bëree le 22 defe naa yàggatul waaw lii lu mënut ñàkk la rek ñu def ko mais daal ama ah, wax wax jeex na daal waaw bañ bañ tolloo ci wax defe naa wax naa feeg ñëpp mhm. kon waaw li ma wax mu ngi si internet yi waaw jëf rek a des yàlla nañu yàlla kàttanal dooleel ñu may ñu kàttan bu ñu jëfee may ñu doole bu ñu jëfee yombalal ñu suñuy jëf te luñ jëf yàlla na ko suñu borom validé ci kaw Luis Ndiago ñu am ndam bu sedd guy si ñun waaw te gaaw ak si Fall waaw tëjuwul dara préparation naka la demee préparation am comme d'habitude ak samay mbokk wax dëgg fa yàlla ku yokkul da ngaa wàññi te gars yi yokk nañ lépp suma staff ku ma juum ñëpp ñëpp tey dama génnoon ñu na ma demal toog nga dallu ñun dinañ gérer lépp wóor na yàlla ak ñi ñu may courant ku si mel ni Makura chaque année xam nga rek da si jàpp daal da soxlawul suñu dara salaamaaleykum bi ma koy bi ma sëq ak moom falaa yam ak moom te teewul lépp mu ngi rafet saa yu ñëwee mu mayaat mi kon sant yàlla di ko ñaanal tamit moom yàlla na ko suñ borom yokk ba mu yëg ko ngentem bi ni gan gi mu am bu mujj bi yàlla doon yàlla na dund te am ndey ak bàyyi ñëpp daal kulluhum waaw ñu gis préparation bi dafa mel ni da nga xaw a yokk poids lan ma war a yokk poids bi ah gisuma lool sax yàlla xam na ne yaa ngi ko wax waaw baag sëñ naa rek daal naa ak sumay mbokk waaw sant nañ suñu bopp macha allah yàlla na continuer noonu bañ am ndam si kaw fi ñuy bëree incha allah. dama la seet si waxtaan ak yow nga ne ma liis waa jàmm gën war na leen sant bu baax ndax fu mu yegg ci làmb waa jàmm na ko yóbbu mais du mën a bëreem du am fitam du am dooleem yaa ngi ci loolu ba léegi. waaw lool lool loolu ñëpp xam nañ ko tamit loolu boo gisee ma koy wax. du dama koy sous-estimer champion la champion la yàlla am na lu ko may nekk fi suñu borom ku nekk am na lu mu la baaxee loo xam ne baaxeewu ko sa morom suñu borom mooy séddalee noonu xam nga yàlla am na lum ko may mais man li ma def si làmb barki maam Cheikh Ibrahima Fall defu ko nee na defet moo ko booleeg yow mais su génn ko boobu bu ci génnoon ak ndam du la sox xool amaana waxam la waaw non wax na dëgg parce que dafa am loolu bu génnoon ci Tapha Mbeur tey jii nii wax waxi ardo mm. mais yàlla dem na ba bañ daje rek yàlla ma yàlla ma ndam ci kaw noonu la demee te na nag xale la saa bu xëyee day gën a màgg ndax bi nga bëgg Ada moom ci kaw tibit ma toog di la seetaan yàlla na ko may mu màgg man dama judd rek bëri man màgguma bëri xale day dee mag day dee yàlla ko yàlla may mu am waaw mu màgg ko comme que xale la mu màgg man màgg laay ñaan yàlla maa ngi nii je suis majeur et vacciné bopp bi ma xoolal des la def macha allah xale fii la mag fii xale yaa koy def xale yaa koy def sa bopp mag yaa koy def sa bopp buñ la yaree fiñ la war a yaree di nga xam looy bëgg xam looy bañ ñu naan xamul yàlla mais xam na yar noonu la demee kon xale nga dinaa la yar dafa mel ni dama jàpp ni yow ñi nga bëree lu dis bëree wu euh, foofu nga teg sa communication ci côté adversaire la wala da nga jàpp ne ñi nga bëree ñoo a ës liis ndax dañu euh, wax ji ñëw dafay da koy répété waat di ko répété. non xam nga lamb bu nekk ak li mu laaj waaw wax dëgg yàlla man kenn xamee ma ay wax boo gisee ma ràqaaju di wax sax dama xam ne man mii nii loolu kenn dàqu ma ko quoi mais damaa xam ne mbër laa. may réserve sama bopp di wàññi wax ju lu bari ji mais barki Seex Ibra kenn dàq ma ko ndax kuy toog di bind yow kase di wax ak sa bopp <laughs> ko kenn dàq ko mais damaa xam ne amul sens quoi amul sens. wax amul sens ndax gis tolloo rek dañ koy def. après fuñ si fuñ toll rek loolu la ñuy doxee quoi ainsi si jëf lañ toll dañuy ñaan yàlla mu may ko wér may ma wér may ma ndam si kawam bala. lan a ndax gis nañu yow macha allah bërekat la preuve en est que sa bii nga génn ça gis nañu bokk na ci xale yi dàq bëri ñu gis ni combat bi moom lañ joxoon favori nga ñëw tey. empêché ñëpp seen wax nga jël liis ñu ne moom moo ko dàq bëre le fait que ñu jox la ci cadre bu bëre bi loolu lan lay def man lañ jox favori quoi. yow lañ jox favori ci cadre bëre bi. ci bëre bi ci bëre bi. waaw ci bëre bi laa la wax yëgu ma woon man maay favori sax. ok mais ci cadre bëre bi. mais man xam naa sa bopp ku wéet xam sa bopp. Ah. xam naa ne lii non bàyyi bàyyi balaa nga sant bàyyi balaa nga sant. da ngay xale ñu gis ni gis ja da ngay bëri xale xale boo xamante ni gis nañ ni jàmm bëri ku ne Siteu da nga naan gis njaago ci li nga xamante ne moom mooy ci ginnaawam ak ci cadre bëri ndax gis nañu dafa duggoon parcelle bëri ki nga xamante ne moom mooy sa garant dafa mbër mu ñëwaat jël fii dugaat jël ardo te nee affaire yi du doon benn est que yow yaa ngi calculer loolu loolu du doon benn le fait que mu jëlee fi defet pour mu amaat fi defet est-ce que loolu. yow xam naa li nga bëgg <laughs> garaawul. lan après lu muy clos. lu ma bëgg. non da nga bëgg xam nga ma def soo garaawul quoi coono bi boo ma xoolee ni ma xam ne dama sonn kon nga ne ab buñ jàmm bu ñu waxee Liss Ndiago kan lañ si teg Siteu. buñ nee Siteu dañ naan Liss Ndiago. waaw bu ñu nee Siteu ne Liss bu ñu nee Liss Ndiago ne Siteu kon nañ préparé yàlla benn bi <laughs> pare naa si kii jox leen ma keneen. dañ ko dégg mu ne danaa dégg kii mais nee na bu làmb ja jeexee ba ca suba bi bu ñu ubbee cin bi duñ fa fekk dara loolu loolu mooy wax gars gars yéen a da ngeen dégg daaj nat waaye yéen waa yéen waa parcelle. waaw ñaari booy yaari ñoo ñaar eh, benn mbéy ci waañ be eh, benn mbéy ci waañ be eh, di baxale kii la kii la di baxale kii la kii la benn mbaam ak ci waañ be benn mbaam ak ci waañ be di baxale kii la kii la di baxale kii la kii la lan ngay wax amul dara lu ma koy wax mooy loolu nee naa la cin bi benn mbaam buñ ci wàññi dañuy baxal ay kilo yi kilo dañuy feet boo ko baxalee noonu mooy loolu gars yi xam nañ sama sima mooy ku si mel ni njaago bi du yàqu njaago maa ngi nii njaago xam nañ tàggatoo waaw sama tàggatoo mooy gërëm ñëpp loo bëggoon doy la ko doy na ko de gërëm di gërëm di si jàpp ñëpp wax na ñëpp jàpp dafa am ay sa taxawaay bu baax gis man kese mais jeunesse bi di woo suma papa Lat Diop yaa ngay def de ma booy dañoo bëgg Lat Diop gars yi dañoo bëgg a dugg yow li nga daan def mais bii bii grand combat la combat la ci biir jongante la ci wàllum gox ak gox moo tax du sama combat mais combat wu gars yi jàppaleel gars yi si kaar ak set ak ak mën nga lépp waaw mooy loolu laay tàggatoo tàggatoo bi di woo ñëpp ñu si jàpp suma grand Xaarim Amar xam nga Omzo bu Garga Mbossé Zeus daf si jàpp bu baax a baax suma grand Xaarim Naar waaw jàpp nga si bu baax a baax xam nga waaw di gërëm xam nga sama papa Jibi Kayda ak jabaram Alima dañuy déggante every day mooy loolu Bilal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Bilal gis nañ jàpp bi gën si jàpp waaw bilaal ku si mel ni san bu nen taal bari bu nen taal doxantu leen waay ngeen dem si nen taal mu def dara yoon la waaw borom promise suñu yaay la yàgg na si jàpp mais bu lu loo yëgul mënoo see def dara bari dox di di woo ñëpp di gërëm ñëpp tamit ñu si jàpp ku lim de waa groupe nopp sa xam nga bu ma nee Fatou Goudiaby lim naa ñëpp bu ma nee capitaine lim naa ñëpp xam nga koñ bi ñëpp ku lim jum Fatou Goudiaby bu ma ko woowee lim naa ñëpp xam nga waaw Absa Tall xam nga ñëpp ku lim rek jum su ma bàjjanu gox suma ma yaay chaque jour mooy ñëw moo may moo may kii xam nga rek dafa xaw a wéré di koy ñaanal mu am wér kattan barki sëñ Fall bàjjanu gox jàmbaar la ci gox bi waaw kenn moom lañ gis waaw suñu madame la maire bi nu mu tudd Mahécor Mahécor waaw fait différence. comme ba léegi ah, tamit ñu lay woo rek. yokkul yaa wàññi nag yaa ñëw yaa fi nekk defalal gars ñu dem Lat Diop moom da def macha allah di woo Fulumuhum Fulum Dioum mais sama grand Soultara tamit euh, nekk ba France borom le sourire ak jabaram waaw bibis ñu leen di gërëm bu baax a baax di gërëm suma jumeau Tafa Ndiaye ko kenn la si man di gërëm bàyyi laat gaayam yëpp ñoom Balla iPhone woo na ñëpp ku lim waa Laas Cambérène di félicité Ndege Ndiaye ak MP ñu nekk ci waa Cité waaw ku si mel ni Ib Mbaye suma grand Ib Mbaye ak Aline mbay Aline seen kër ay ñoom Dame Mbaye ay ñoom Vieux mbay ba si Aziz Mbaye ñëpp bàyyiwuma kenn gis nañ taxawaay bi suma grand papa papa papa Sow suma papa papa saw ak Modou Lo di leen ñaanal wér gu yaram papa Gueye ñu ngay siyaar bu baax a baax ak euh, assurance père ba yaa koy def barki maam a Fall yal na la yàlla kattanal doole la yow sa doom Mansour ak Baba Ciss ak waaw Serge waaw dégg naa gars yi nee nañ borosal nga ñu barki suñu Fall borom alliance yal na la yàlla jàmmale andaw andaw ji sa lamb la mooy loolu noonu suma grand vieux Ciss kooku kenn la si ñun ñëpp suñ ko fëggee mooy loolu noonu